asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci bopp yéenekaay yi tey di àjjuma yemboog ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février 2013 bayim degondiku bi nga xamanteni ni bayi nañ ko ki nga xamni moy Cheikh Béthio Thioune di njiitum kun mom la las dal di fesal ci xetam bu njëkk mu ñuy xamal ni de Cheikh Béthio Thioune dal nañ koy bayi waye nak bayi giñ ko bayi bayim degondiku la te tax liñ koy surveiller dafa bari bu bari trop moo ñu ni ko lu tax mu ne waaw te kat dafa melni sax ku nekk ci ab kasso bo xamni ni a ciel ouvert la parce que nag donte kan ni bayi nañ ko mu am liberté provisoire manam bayim degondiku mom momé di Cheikh amul droit genn dekk bi parce que ginnaaw voyage bi nga xamni dem nako ci mbirum dem faju bu ñu moom dañ koy tere mu génn dëkk bi laas di ñu xamal ni kat kii di Mimi Touré nekk ministre de la justice ba léegi mu ngi maintenir pression bi mu yoroon ndaxte xam le ne ni kat lii di dossier bi moom day dem si assises yi le populaire daal di ñëw ñun ni kat Cheikh Béthio Thioune moom bàyyi bi nga xam ni bàyyi nañ ko dañ koy ci contrôler ba mu bëri te kat kii di gitu cantaaku ni moom sax dañ ko tere mu ab cant l'observateur ñëw ni Cheikh Béthio Thioune bàyyi nañ ko nag wante sax lii di déclaration publique maanaam wax ci mbooloo dañ ko ko tere ay dëkkan nekk ñaareel ci ki nga xam te ni nii mooy Euh, njiitum cantanku ni mu ngi xamle ni kat borom këram moom dafa gardé woon di ñu téem ak ngorom ba fii ñu toll nii le populaire daal di séq ak waxtaan ki nga xam ni mooy Serigne Saliou Thioune nekk taaw ci ki nga xam ni mooy Cheikh Béthio Thioune moom mu ngi xamle ni kat kii di papaam moom baal na ñëpp surtaxe maanaam yokk gi nga xamante ni nii yokk dañ koy yokk yenn ci appel entrant yi maanaam ñi nekk bitim réew appel yi ñuy def woote gi ñuy woote jëmale ko fii ci Sénégal kat li nga xamante ni nii mooy directeur télécom moom daal di xam ne ni opérateur étranger ma ñoo ko daal di def mbirum bachelier yi nga xamante ni nii kenn orienté wu leen Macky Sall daal dina ci am xalaat ndaxte kat ci conseil des ministres am lii ñu génn xam le ne kat moom moo mais daal dinay bëgg nag orienté nag ñi nga xamante ni nii ñooy bachelier yooyu ñu orienté wul waaye lam ca bëgg moo doy waar ndaxte xam le ne ñi kat daf leen bëgg yóbbu ci école privée yi looloo tax tax école université privée yi tax las daal xamné ni kat ah Macky Sall kat daal né nay bëgg jël ñi nga xam ne nii ñooy yi nga xamné ne kenn orienté wu leen euh, yóbbu len ci école privée yi pendant ce temps ñi nga xam ne ñooy nag yi nga xamné dañ leen orienté te buñu défé defee comparaison dinañ xol ni sax ñi ñu orienté ño xawa gëna tané a tuuti ci am njàng ñi ñu orienté wu ñu bëgg a jël nag ñooñu ñu orienté yóbbu len ci université ba ñuy dankalo di ki jël ñi ca dess daal di leen di yobbu ca fa nga xamné ni moy euh, université privée yi ñom xam leen nañ ni kat bu defee loolu moom dina doy waar. ba tey li gën a fës ci bopp yéenekaay enquet daal di fësal ab laaj ci xëtam bu njëkk mu ngi xamle nag lan la ki nga xam ni mooy Moustapha Niass di joué ndaxte ginnaaw bi nga xamee ni daal di nay def nag euh, déclaration patrimoine maanaam la mu am daal di koy def ci benn kayit yóbbu ko ñi nga xam ni mooy conseil constitutionnel bi nee nañ donte ni mu ngi ko doon def moom xam na ni kat conseil constitutionnel bi moom amul woon euh, matuwaay amul woon compétence su di jël li nga xam te ni mooy document boobu ndaxte kat bu ñu xoolee loi bi nga xam ni voté nañ ko ba fii ñu toll nii kii di président de la république rek la exiger mu daal di def déclaration patrimoine looloo tax ñu daal di laaj ni Moustapha Niass moom lan lay joué nii lan la bëgg le populaire daal ñuy xamal ni kii di le ministre de l' moom daal nay yu nga xamante ni daal ñu ngi ko doon dute maanaam di ko li nga xam ne ni l' intérieur moom daal di dagal loolu yëpp ndaxte kat wax na na ni kat li nga xam ne mooy locale yi moom dinañ ko amal ci fukki fan ak juróom benn ci weeru mars 2014

ci xibaaru tàggat yaram enquête daal di dégg séq ak waxtaan ki nga xam te ni mooy Amadou Gallo Fall nekk vice président NBA section Afrique moom mu ngi xam ne ni kat Sénégal moom euh, dina daal di dellu place am ba mu nekkoon ca basket ci basket africain yi l'observateur daal di séq ak waxtaan ki nga xam te ni nag mooy be cinquante 52 maanaam euh, bombardier xam le ne ni nag dafa bëgg a yëkkati baa booy dóor mu sedd daan bu mel noonu la ko bëgg a daan xam le na trop pour ñu officialiser maanaam fësal euh, contrat fësal digganteem ak baa booy ndaxte kat moom kenn gënu koo anti combat boobu suñu làmb ne ma nga am ca Fass ne mooy Mbaye Gueye ak euh, nañ ndaxte xam le nañ ci mbirum Lac Rose ak euh, Gris Bordeaux kii mooy roi kële mooy tigre kii mooy lii kii mooy laa looloo tax nag Fass moom yëngu na ba tey ci suñu làmb sax Abbas Ndoye ki nga xam ne mooy président Fass xam le na ni kat kii di Gris Bordeaux moom mooy desandi le leader de Fass ba tey suñu làmb ñu ñuy xamal gargar dina war a jàkkaarloo affronté ki nga xam ne mooy Lac Rose looloo tax sax ñu daal di samp laaj ñoom ñaar ñoo ñëwee bu ñu leen boole kan mooy nekk adversaire pour Siteu ah ki nga xam te ni nii kat mooy Gaston Mbengue nekk la doon kin dala ren ah ki nga xam ñi nga xam ne ñooy euh, suñu làmb de daal di nañuy nag annoncé li nga xam ne mooy retrait ndaxte nee nañ nag dina daal di jug nag génn ci li nga xam te ni nii mooy arène Sénégal bi moo tax ñu ni nag loolu moom bu amee dinañ ko euh, namm torop ba tey ci suñu làmb ñu daal di xam ne ni kat le 9 mars ci stade Demba Diop la kii di Ama Baldé ak Ama Neex di laale waaye nag balaa boobu altine bii ñu dëgmal dinañ jàkkaarloo daal di defiyeen te defante ko daal ba mu saf xibaaru jamono yi maanaam fait divers ki nga xam ni nag mooy l'observateur daal di ñëw ak ñun ca la nga xam ne nii moo xew fële ca école les pédagogues maanaam professeur ba ñu jiiñ ni moo egg ci xale boobu professeur bi xam leen ni kat moom xale bi gisu ko xamu ko musul euh, séq xale bi niñ koy wax jàpp nañu loolu yëpp dañ ko ko jiiñ euh, ab maguy la maanaam mbir boo xam te ni daal xale beeg yaay ji yaay ji moo ko sol xale bi mu ñëw di ko wax waaye moom mu ngi maintenir fi mu taxawoon taxaw fa tey nee na nag moom musuta laal xale bi musuta gis xale bi te li ko xale bi di jiiñ lépp defu ci dara le populaire daal di def ñun ab njàngat xamal nañu kat fële ca Kédougou moom ñi nga xam ne dañu fay jaay seen bopp dinañu laal lu tolloog 3 millions chaque fin du ba tey ci xibaaru jamono ji lu doy waar loolu la enquête xam ne tey journaliste yi moom fa ñu mënee bari waaye nag kii di Ndiaye Dose moom du ma weddi ndaxte kat euh, bu weesoo problème yi nga xam te ni nii yëpp journaliste yi am nañ ko ba su Ndiaye Dose daal di na ci ñëw moom lan la def dañ ni kat dañ ko porté plainte te kenn porté plainte ko ku dul Sidi Lamine Niass lan moo leen jotee nee nañ kat dafa amoon benn góor gu bëggoon ab visa kii di njaay Dose daal di imité maanaam jël signature euh, euh, Sidi Lamine Niass defaral nit kooku carte de presse defaral ko lépp signal ko daal ba mu mel ni nit kooku liggéeyee Walf lay liggéeyee te Sidi Lamine moo signé yooyu yëpp daal di koy yóbbu ambassade bu France pour ñu defaral ko visa waaye nag euh, mbir yi fa fa mu fa mu feeñee mooy fa waa ambassade France daal di woote Sidi Lamine di ko laaj ndaxte ndax kayit yooyu góor googu indi lépp moom moom moo ko signé euh, ci la Sidi Lamine xam ni signé wu ko ñu daal di woo waa ji ñëpp teg ñu xam ne ni que démb nag kookee di góor googu ak ki nga xam ni mooy euh, njaay Dose mi ko def daal di nañ leen di téye ca dig te njottu nañ sax tey ci àjjuma ji dinañ leen defeere mbokk internet yi fii la ñu naroon a ndar keppe li gënoon a fes ci bopp yéene kaay wante balaa boobu. ndekete yoo. ndekete yoo. ndekete yoo sàcckatu plaisir voleur de plaisir lañ wax maanaam ñi nga xam te ni nii moom dañuy rasaatu rek ñu ngi fépp lu doy waar la populaire ñëw ak ñun ndaxte daa am benn waay ju nga xam ni daal ab benn soxna la ko langal te fam ko ko doon defee du fenn fu dul ca ñëpp di ñëpp concentré wu ñu jékki-jékki rek dégg ñëpp geesu lan la woon benn ku góor moo doon sësu kenn ku jigéen ku jigéen ko daal di koy mbéj ko door yu xamal ni ko ni moom daal doo ko doon sësu di ko sësu daal daan mu doy na wax daal kon sàcckatu plaisir yi moom ñu ngi fépp ñu ngi fépp lii moom mooy loolu noonu moo tax fii la ñuy ndarkeppee nag li gënoon a fes ci bopp yéene gars yi di leen jox dig daje ëllëg di leen ñaanal njaxtalu ay bisub jàmm jërë ngeen jëf